liggéey bi yàgg na liggéey bi métti na li ñu bëggoon am nañ ko mooy gañe nañu suñu victoire dañu koy feetu ci sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sëriñ Touba sëriñ Seydi Mokhtar Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér mais sax neen président Abdoulaye Wade ak mboolem coalition bi ñun duñu yàq suñu dëkku maam ndax suñ Tuubaa moo jur suñu maam ñun ay taalibe lañu ndigalu sëriñ Tuubaa la ñuy déglu ban tàmbalee campagne sëriñ Seex moo ko jiitee ay kaamil alxuraan lañ tàmbalee ndax moo ñu fal ndax alxuraan moo fal lépp mais population Touba ak Mbacké boo demee na nga wax président Ablaye Wade dañuy soxla ay poste ci assemblée nationale muy président lañu ñu am juróom-ñaari député yóbbu ñetti député la région am nañu fukki député ba pare maam du ñu sedd suñuy cër pour les élections 2019. waaw boo demee wax ko président Ablaye Wade ñun ay candidat lan pour groupe parlementaire bi ñu am foofu noonu ay candidat lan pour am président euh, commission et le vice président de nationale ndax dañu ko am cër ñaari cër yooyu nag Touba moo ko mën département bi merci je vous remercie merci.